ndax conseil des ministres bi moo waroon a am tey ci suba mu waroon ñëw ci ñun mais comme conseil des ministres bi am te yàlla defal nañu jàmm ah, ñu dem fekk si waxtaan ak moom mu ànd ak ñun métti bi ci xam ne nangu na ne dogalu suñu borom la yi ci war a jot yëpp def nañ ko ci ah, yeneen yi ci war a am yëpp ci ñu war koo jël en charge dana ko def kon nag jàpp na ne ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant ñi nga xam ne ñoom ñëpp lañ àndaloon ci délégation bi